Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum Manam ñi febar, ñi febar. Nek ci hôpitaux yi wala wala fièvre nañ fièvre bo xamni euh euh sen dox mhm. yombatul mhm. wala amna ci ño xamni dañ nan rap mo len dugg mhm. man gis na ñaar ji yoo xam ño bokk nday ak bay mais dañu am rap mais dañu dañu dañoo jeex a jeex a jeex jeex ba ba ma len gisé sama yaram sax dafa daw mais lolu ndax ku am rap rap ne ci mom salatu ala nabi mën nako ko mën na salatu ala nabi mën na mën na mën lool surtout salatu al salatul fatiha fi ne fi ne wàllu rab ki nga xam ne dafa am faru rab wala wala wala wala wala wala jabaru rab kooku fi ne bu bindee wasamaay wataare bind bu góor bu jigéen ak bu ngóonu ngaan mooy bu ñu maas bu ñu maasul ak benn boo xamante ni kenn amul tombul maas nga nga nga nga jël ko di ko di ko di ko sangoo benn bi da nga koy bind ko benn bi nga bind ko di ko sangoo ko naan mhm. bu soobee yàlla rab boobu day dañ par force day dañ rab ñemewul alquran jinne ñemewul alquran ndax alquran moy li nga xamanteni ni moy mooy kalam mo gën ci lepp wallahi moy xayri kalam kalamun xadim waaw wallahi an qawlin wa fi'lin wa niyati wa kitabun bihi arju min rahmatan wa nan jubihi dunya wa ukhra min alkarbi kon léegi kon léegi alquran lan nga ko bëgg bëgg mengale lenen dudul dudul mom mm-hmm. motax nak nit ku nekk rek war nga am yo xamanteni ni kenn ku ci nekk sa kër war nga ko am mais yi nga xamanteni nak nit ki da koy da koy saxal fi ne man yalla dimbali na ma ba ki ma dajal mu duy ma ba ma fess del joxon na ma ndigalul joxe tur yàlla bu la neex nee na ma tur yàlla boo liggéey jox naa la ci ndigal ak képp koo jox ndigal بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بول فاتي كليك سي ابوني اك سي كلوس بو ndaw بي pour vidéo wuñ mën ci nga mën ko ñëk am assalamu alaykum